suñu presse à la présentation Aïchatou Pape dale nag jàmm li yéeni kay xëyi tay jile bokk na ci nañuy def rek ba wàññi dépense nguurub Sénégal solution bu assemblée nationale ak immigration irrégulière carte blanche ba nga xamante ni kii di njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye am na ko jëmale ci tas assemblée nationale yéeni kay bile di Sud Quotidien daal di si dellu siwaat di xam ne ne daanaka fan ya nga xamante ni quatorzième législature bi am na ko foofu la ci assemblée nationale la ca des bëreetul lu jëm ci suppression des hauts conseils des collectivités territoriales ak conseil conseil économique social et environnemental ba ci jëm ci wàllu assemblée nationale daanaka Diomaye Faye la mu bëgg rek moo di tas Benno Bokk Yaakaar loolu nag nekk la nga xamante ni mën nañ koo jàngat ci yéenekaay bi le di Walf Quotidien yéenekaay bi dellu siwaat itam ci la nga xamante ni moo ñeel wàññi dépense nguurub Sénégal ak ndogal ya nga xamante ni kii di premier ministre di Ousmane Sonko daal dina koy jël beneen yéenekaay bu àddu ci li ni mel xamante ni ah, dañ koy nemmeeku ah, ci bureau boo jël ah, ci biir entreprise yi yaa nga xamante ni rek moom la premier ministre bëgg mu di ay imprimante ya nga xamante ni ñëpp moom la ñuy utiliser loolee gën def ci bureau bu nekk ab imprimante beneen mesure ba nga xamante ni moom premier ministre Ousmane Sonko daan na koy jël mu ñeel wàllu réfrigérateur machine à café ak lu mel ni micro onde dañuy def rek ba nga xamante ni ñëpp a koy bokk di jëfandikoo uteeg jamono ya nga xamante ni ku nekk rek da ngay am benn sa bureau beneen biir ba nga xamante yéene kaay bi li dellu si war na ci mu di téléviseur yi nga xamante ni dañ koy tëri itam ci yooyu les entreprise bu weesoo directeur yi nga xamante ni rek ñoom képp la ñuy may ñuy jëfandikoo téléviseur ci seen bureau yéene kaay bi li di le soleil moom itam a dellu si waat ci li ni mel muy xam ne ne fukk ak juróom-ñaari mesure li ki nga xamante ni rek le premier ministre Ousmane Sonko daal di jël ngir wàññi dépense ba nga xamante ni nguurub Sénégal daf koy faral di def yéene kaay bi di source a moom dellu si waat ci séminaire bi nga xamante ni parti socialiste daf koy amal moom la ñu bëgg mu di gën a dëgëral parti socialiste mu bokk ci parti ya nga xamante ne dañuy gën a fës ci réewub Sénégal bàyyiwuñu sax balaa jaat réewub Sénégal yéene kaay bi di l'observateur moom dafa dellu siwaat ci candidat boobule ci élection présidentielle bu atum 2024 di Amadou Ba dellu siwaat ci la nga xamante ni moo ñeel révélation parti politique ba mu bëgg lancé la koy amal ak fan la koy amal yooyu yëpp ñu mën le quotidien moom dellu si waat ci la nga xamante ni rek moo dox diggante Sénégal ak FMI délégation Fonds monétaire international ñu koy xaarandi fii ci Dakar juróomi fan ci weeru septembre atum 2024 war a waxtaane la nga xamante ni mbirub eurobond ak yeneen mbir ya nga xamante ni daanaka dox na diggante Sénégal ak FMI yéene kaay bile di bés bi le jour moom dafa dellu siwaat ci immigration ya nga xamante ni jigéen ñi dañ koy amal mu dellu si waat ci confidence ba nga xamante ni ci jigéen ñi dañ koy amal moom Aminata dafay xam ne ba muy tukki rek jaare ko ca gaal yi seen gaal dafa jël ndox te fukki jigéen bokkoon nañu ca boobule gaal beneen biir ba nga xamante ni yéeni bi lu si na ci mu di ñaari xale yu jigéen ya nga xamante ni seen yaay rek moo leen financé ngir ñu dem foofule ca gaal ga ñoom ñaar ñëpp mujj ñàkk seen bakkan ci fànn woowulee yéeni kaay bi di tribune moom a xam ne ki nga xamante ni rek moom moo di Bougane Gueye Dany daan nay sulli mbootu waa Pastef ak Benno Bokk Yaakaar moom Bougane Gueye di xam ne ne daanaka Benno Bokk Yaakaar sénégalais dañ ko rek génne ci seen bopp beneen biir ba nga xamante ni moom Bougane Gueye Dany daan na koy xam ginnaaw juróom benn weer rek ci bopp réew mi daanaka foolaal rek ci Sénégal dafay daal di métti beneen biir ba nga xamante ni moom Bougane ñëwaan na ci mu di làmbaatu ba nga xamante ni jàpp na ni parti bi di Pastef dañ koy amal jaaree ko ci la nga xamante ni rek moom di dissolution bu HCCT ak conseil économique social et environnemental ñu mën koo jàngat ci yéene kaay a di tribune yéenekaay bi di réew mi quotidien amoom dellu siwaat ci cas d'agression ak faat ya nga xamante ni gis nañ ko ci biir réew mi ak lu ëpp ci ñeenti téeméer doomu aadama yu ñu teg loxo yéenekaay bi di libération moom a dellu siwaat ci coow li dox diggante Woodside ak Fisk ñoom nag war a taxaw ci kanamu àttekat yi juróomi fan ci weerub septembre atum 2024 yéenekaay bi di record moom dellu siwaat ci liste bi nga xamante ni ak i tàggat gaynde Sénégal yi daan na koy fësal ni ki démb mu ñeel bi nga xamante ni war naa dox diggante Sénégal ak Burkina Faso ci lu jëm ci qualification Coupe d'Afrique 2025 Boulaye Dia bokk ci ña nga xamante ni woowu ñu leen ca boobule liste ak Maodo Diouf ma nga xamante ni daanaka moom moo di novice ci bile équipe. suñu presse vous est offert par Air Sénégal.